alhamdulillahi rabbil aalamiin wassalaatu wassalaamu ala rasulillah mbokk yi noo ngi dellu di sant yàlla sunu borom tabaraka di julli ca yenente ba sallallahu alayhi di la nuyu ca lislaam muy assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu kon alhamdulillah nu fas yéene dellusi waat ci sunu fàttali fàttalik tafsir ca nañ ko daan amale incha allah eh, sunu fàttali gu mujj gu jëmoon ci tafsir ñoo ngi toll woon ci suuratul insaan ci laayëb fukk ak ñaar mooy fa suñ borom tabaraka wa taala di waxee wa jazaahum bima sabaru jannatan wa xariira booba suñu borom tabaaraka wa mi ngi wax ak jaamu yàlla yi nga xam ni dañoo ragal yàlla topp yàlla suñu borom te déggal ko waaye nag di matal seen nisër ragal yowmal qiyaam ba tax ñuy joxe lekk fi sabilillah donte bëgg nañ lañuy joxe di ko defal ay miskin ak i jirim te ñay joxe lekk fi sabilillah joxe wuñ ko ngir bëgg ku leen gërëm joxe ko ngir bëgg ak pay joxe ko ngir bëgg ñu xam leen waaye dañ ko joxe rekk ngir fàggu ngir sàkku yërmande suñu borom ngir sàkku ci njëggaluk suñu borom ngir sàkku ci àjjanay suñu borom tabaraka wa taala waaye ngir bëgg suñu borom musal leen ci mbëggalum sawara suñu borom tabaraka mu ni ba ñu defee loola ñoom day loola ñu doon muñ bànneexu lekk googa ñu bàyyi joxe ko fi sabilillah tax na ma may leen aljanna ak soha ca biir aljanna yooyu nag ba leen ko sunu borom mayee defal leen ko suñu borom tabaraka wa taala daf caa teg mu ni muttaki'iina fiiha ala al araa'iki laa na fiha shamsan wala zamharira yàlla suñu borom tabaraka wa taala nag mu ni mu takki iina ñuy aji sóonoo ñuy aji sóonoo maanaam ñuy aji tëg tëdd fiiha ci biir aljanna ya alal ci ay lal lal yu nooy lal yoo xam ni daanaka fauteuil lay doon nooyu nooyu lool lool lool ba noppi kawe lool it teg ci loolu la am ci biir aljanna ya lal yu nooy kawe lool ànd ak bànneex lool loolu nag su amee yàlla mu ni laa yaraw na du nu gis fiiha ca biir aljanna shamsan du ñu fa gis jant buy tàng ba di leen sonal du ñu fa gis aw tàngoor wala zamharira te it duñu fa gis mukk ab sedd bu sedd ba di leen sonal kon biir aljana ñu baax ñi yàlla nee na suñ fa duggee danañu sóonoo ci ay lal yu nooy yu kawe yu bànneexu lool maanaam yu bakkane nga xam ni ku fa boo gisee lal bi xam ne lal bu bakkanee ngi nii léegoo-léeg nga gis ko ci àdduna waaye misaal mi la rekk waaye nag ya am ca aljanna loolu moom kenn mënula misaal na mu mel waaye suñu boroom da koy misaal rek ci suñu dégg-dégg waaye neexaayam ak nooyaayam ak kawewaayam kenn mënula ko expliquer ci bànneex ak ci bakkane waaye nag léegoo-leeg fii ci àdduna yëf lum bakkane bakkane léegoo-leeg nga yëg tàngoor wala seddaay bu sedd lool ba tax nit ñi di sol ay jeget wala di sol suwet maa di féexlu ak yu mel noonu waaye nag suñu borom mu ni biir na du ñu fa gis mukk jant boo xam ni da leen di sonal ci aw tàngoor doo fa yëg aw tàngoor wanaan wanaan tey dafa tàng wala tey dafa mbooya amul aljanna waaye it wala zamharira amul seddaay boo xam ne dañ naan tey de dafa sedd kenn mënta génn ndax seddaay wala kat faaw ñu sol ay jeget ngir mën a génn wala yu mel noonu amu fa maanaam jaww ji ci boppam climat bi dafay stable dafa yem ci digg bi mutawassit jaww ji ci boppam day yem ci digg bi du tàng mukk di sonal kenn kenn du jàmbat aw tàngoor waaye kenn du jàmbat ab seddaay noonu la aljanna mel noonu la ko sunu borom tabaraka wa misaale yàlla nag teg ca mu ni wa daaniyatan nee na danañu danañu danañu ñu jegeel danañu jegeel maanaam danañu xëcc mu jege alayhim ci ñoom zilaaluha kerya kerya aljanna xam nga day am ay garab yu naat yoo xam ne ay garabu furwi la garab yu neex lool suñ borom nag mu ne day wàcce ker yi ba mu jege leen lool maanaam day jegeel ker yi ba mu jege leen waaye nag wa dullilat wa dullilat ñu daal di jegeel wàccee xutuufuha meññente ya tadlilan ak jegeel lool ker yi day wàcc ba jege leen ba nga xam ne daanaka day doon am mbaar ci ñoom dañuy féex lool waaye nag firwi yi ci boppam it xob yi ci boppam firwi dafay wàcc ba jege ba jege lool nit ñi nga xam ni day yomb nga mën a dagg ci firwi bi jëfandiku ci te doo ci sonn doo tëb doo yéeg ci garab doo jël ab bant di ajji wala aw xeer di sànni fi nga taxaw ngay taxaw yëkkati sab loxo rocc la ngay rocc lekk ci te day ànd ak bànneex lool noonu la garab yi nekk biir aljanna mel lii nag sunu borom li tax mu koy misaal da ko misaalal jullit ñu baax ñi ragal yàlla waaye nag di joxe seen lekk te yàlla dong tax maanaam di leel miskiin yi te yàlla tax di dimbale way ñàkk yi te yàlla tax di joxe seen alal fi sabilillah te yàlla dong tax kon misaal mi yépp looloo tax suñu borom di ko misaal ni ñoo ñu laa koy defal waaye nag waxuñu koo xam ne day joxe alalam ngir bëgg ku ko yëg kuy joxe alalam ngir bëgg ku ko xam wala ngir bëgg ku ko tagg waaye yàlla mi nga wax kiy joxe lekk wala kiy joxe alal wala kiy dimbalee te soxlawoo ci payug nit soxlawoo ci ngërëmal nit waaye ngërëmal suñu borom dong nga ci soxla wala payug suñu borom su boobaa nag suñu borom nee na sama pay moom lii la lii la mooy aljanna ju kawe am lal yu nooy te kawe lool ba noppi nag doo fa gis tàngoor doo fa gis seddaay bu metti lool ba noppi nag garab yi ker yi jege lool meññent yi jege leen furwi yi jege leen ba ku ci soxla da ngay yëkkati rek dagg lekk te kenn du la tere kenn du la wax dara kenn du ne la lu tax nga def ko looloo am biir aljanna yàlla mu ni wa yutaafu danañu wër alayhim ci ñoom mooy ñu baax ñii ma wax bi aaniyatin ci ay ndab yoo xam ne nag min fiddatin ci xaalis lay doon ndab yi xaalis lay doon bronze wa akwaabin ak ay kopp ak ay kopp mooy ay kaas kaanat yoo xam ne dafay nekk xawaariira verre yàlla suñ boroom mu ni lii suñ ko amee am ay lal yu kawe amuñu tàngoor amuñu seddaay bu metti ba noppi nag garab yi tiim leen fur wi ni gàññ ku ci soxla rek jël waaye nag suñ borom nee na mu wërale leen ay ndab yoo xam ne ndab yi xaalis lay doon maanaam ndabi waxuma ndab lu fees ak xaalis de waaye ndab li ci boppam branche lay doon moom lay doon mu wër leen ay xéewal ñoo ci nekk ak i bànneex ku bëgg jël waaye nag am ànd ak ay kopp ay kaas yoo xam ni kaas yi verre lay doon lii bi ko boroom xam-xam yi di firi dañoo ni xawaariir verre la bu bouteille boo xam ni kenn mënulaa misaal ak rafetaayam maanaam rafet fa la yam fa la rafet yam waaye nag suñ borom mu ne xawaariira nee na verre la de waaye nag min fiddatin verre bi ci boppam xaalis lañ ko defee xam nga loolu yombut masalan verre boo xam ne bronche la masalan bronche boo xam ne dafay leer naññ ba boo ko xoolee di gis la ca la ca ginnaawam day nuro verre loolu fa la ab taar yam fala taar yam ci xeetu kaas fala taar yam ci xeetu nga am sa gan bëgg berndeel jox ko lu mel noonu tey defe naa fi àdduna nit bu amoon gan wut kaasu bronche wala wut kaasu or defal ko ci boisson jox ko loolu day tekki ni ku fonk gan gi la waaye nag suñ borom tabaaraka wa mu ni gan yi ma war a am aljanna teñ liggéeyoon ci àdduna dañuy ànd ak ay ndab yoo xam ni ndab yi xaalis lay doon ba noppi am ay kaas yoo xam ni kaasu veer la mais verre bi ci boppam ñu ngi ko defaree xaalis loolu nag fa la teraanga mën a yem mbokki jullit yi kon suñu boroom ko xam teraanga la waaye nag teraanga ji du ko defal n'importe qui mi ngi koy defal ñi ko déggal mi ngi koy defal ñi nga xam ne dañoo bëgg jaami yàlla yi di leen dimbali te yàlla tax waaw gis nga nit ki su fekkee mi ngi ci mi ngi ci mi ci li yàlla bëgg nekk ci la yonent bi sallallahu alayhi wa bëgg ba noppi nag di xool aajoy mbokki jullitam mu di ca dox di ca dox di ca wax bu ko mënee faj sax mu faj ko ku mel nii day moo tax suñu borom di misaal àjjana ji di misaal xéewal yi ak bànneex yi nee na ñooñu danañu ko am mhm. yàlla nag nee na euh, kaas yi day nekk xaalis ba noppi qaddaruuha nee na dañ koo yamale yemale diiram ak yamale cest diir dire nee na kaas yi nga xam ni dañ ciy def ay xéewal ngir ñu di ca naan nee na kenn ku ci nekk kaas bi ngay jël rekk la nga mën a jël rekk moo cay nekk te neexaay bi day tolloog sa bëgg-bëgg yow xam nga tubaab day wax naan neexaay ak rafetaay kenn du ci débat parce que li neex kii mën na bañ a neex kee waaye li rafet ci kii mën na bañ a rafet ci kële donc kenn du ci débat waaye nag suñ borom tabaraka wa taala moom biir aljanna la muy joxe ñu di ko naan képp ku jël sab kaas rek dafay neex ci yow faww bu kii nee neex na rek yow it da nga naan neex na yow it waaye doonikat neex na waaye dafa tuuti déedéet neex na te naan nga ci ba doyal sëkk te du des maanaam doo naan ba pare naan naan nañ ba bafa bu ko defee ñu koy tuur yi déedéet amul tuur lekk nañ ba bafa amut maanaam bu dañuy lekk ba mu jeex te dañuy regg day yem képp ca la ñu bëgg léegoo ñu tiim ab bool lekk ba àggal ñu ne ah neex na nga dégg am ko ne neex na nag waaye dafa xaw a kaani keneen ka ca des ne ah neex na waaye xorom si keneen ni ah neex na waaye nag amul masalan soble soble wala amut nangam wala amut nangam waaye nag suñ borom moom bu ëndee ba servir ba pare ñépp naan gongo ñépp naan neex na day yem ci ñépp seen bëgg-bëgg ak kenn ku ci nekk la nga mën a jël parfois nga toog ñu joxe ay kaasi boisson ñu naan ba àggal ñu ne ndax ñu dolli la kenn man de baax na keneen ka ne dolli ma àjj na amut loolu suñ joxee rek ñéppay naan ba màndi kenn dootul soxlawaat dolli ba noppi du fa des ñu di ko tuuri yi loolu mooy qaddaruha taqdiira noonu la suñu boroom mel ci teraanga mbokkum jullit lii may explique nag li muy neex neex neex képp ku ko bëgg am faw da ngay déggal yàlla déggal rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam waaye nag di dimbali say bokki jullit yi nga tane te yàlla tax te bul bëgg ku la gërëm bul bëgg ku la tagg bul bëgg ku la xam bu ko def mukk bu ko mbokkum jullit maa ngi lay wattandikuloo ngay def dara fi sabilillah ba noppi di ko waxewaat maa ngi la koy wattandikuloo di ko wattandikuloo sama bopp lu tax nit ki mën na def jëf ju rëy suñ borom gërëm ko ci bëgg ko ci waaye nag mu dem ba jamono mu yàq jëf ja xoolal alal ni mu neexee nga liggéey ko ñàkk ko dang-dangi ay fan wala ay weer wala ay at ba yàlla defal la wërsëg nga am ay million nga yëkkati ci lu mat yeneen ay million defal ko jullit ñi fi sabilillah moo xam danga leen a tabaxal jumaa moo xam da leen a gasal teen moo xam da leen a jëndal ay ceeb moo xam da leen a dimbale ci yëf sàngam moo xam moo xam moo xam loola jëf ju rëy la ëllëg jot nag nga toog naan bu dul woon man dëkk sàngam duñu am jumaa bu dul woon man dëkk sàngam duñu naan ndax maa leen gasal teen bu dul woon man bu dul woon man kon sa jëf ja nga jëfoon yàqu na perte nga ko amatoo ci dara haba am man mansuuran lay doon kon maa ngi wattandikuloo yéen ñépp ak man sama bopp ñuy def lu baax ci jullit ñi ba noppi wëlbatiku di ko wax ndax kii ñëw jàmbat la soxlaam nga dimbali ko fii sabilillah kooku jëflante woo ak moom jëflante ak moom waaye yàlla sa boroom ngay jëflanteel kon soo ci noppee noppi ca yàlla mi nga jëflanteel yëg na ko gis na ko yonent bi aleyhi salaatu wasalaam ne na képp koo xam ne yaa ngi dox ci aajoy sa mbokkum jullit nee na yàlla dina la fajal say aajoy bopp yow loolu nag mooy ki nga xam ne day faj aajoy mbokki jullitam ba noppi nag ni patt ak moom bañ cee ndamu bañ koo nettali bañ cee naagu bañ cee wane ak ak rëy rëyloo defal te yàlla tax soo noppee bàyyeel ak sa boroom te noppi yàlla moom la ko war dana ko def ca jëf ja jëf su ko defee nag yàlla mu ni woyu xaw na nee na danañu leen naan daal maanaam danañu leen jox ngeen naan waa aljanna ya fiiha ci biir aljanna ya kësan ci ay kaas yoo xam ni kaana dana nekk misaajuha lañu koy jaxaseel zanjabila prix bi mu gën a jege mooy jinjeer dañuy wax san zanjabil mooy jinjeer waaye zanjabil moom kenn xamut lan la ci àdduna waaye mi ngi bokk ci xeetu neex-neex yi nga xam ni euh, dafa dafa saf masalan fële kaafuur la yàlla waxoon kaafuur dafa nekk loo xam ne dafa neex dafa jëm ci neexuk suukar bii nag san jabil neex la gu jëm ci neexuk saf dégg nga wax bi donc ñaari neex-neex yi bokkuñu bii dafa jëm ci côté suukar bala jëm ci côté tàng masalan côté ñoom kaani wala yu mel noonu mooy zanjabil kon biir aljanna lépp lu waay bëgg ci façon cocktail yi rek am na fa lépp lu waay bëgg ci façon cocktail yi rek am na fa yaay xool lala neex nga jaxase kook la nga bëgg nga naan te da ngay day neex te la ngay jaxaseek loola cocktail loo jaxase lii ak lii nga ne dafa ëpp déedéet lépp loo jaxase rek dafay nekk lu sta lu lu lu mutawassit ci digg bi lay nekk mhm. noonu la ko suñu borom waxee waaye nag yàlla mu ni aynan nee na ab bët lay doon fiiha ci biir aljanna maanaam benn bën bën lay doon ci biir aljanna tu samma ñu di ko tuddee salsabila salsabila mooy salsabil salsabil li boroom xam-xam yi wax ni li tax ñu tudde ko salsabil mooy dafa neex a naan yomba yomba jàllale maanaam jus la boo xam ni nekkut jus bu far nga xam ni boo ko doon naan day xaw a jafe jàllale yenn saa waaye day nekk bu léger bu léger lay doon boo xam ni day neex a jàllale te day neex a naan te day neex wanaasu lool mooy salsabil kon bokk yi nu yemale foofu sunu fàttali tey ci laay yooyu ba beneen fàttali incha allah ñu tàmbalee ci laaya fukk euh, juróom-ñeent muy wa yatuufu alayhim wildaanun muxalladuun incha allah kon yàlla na nu yàlla boole defal jàmm fi dunya wa fil axira defal ko mboolem jullit wa sallallahu wa wa ala wa barakaatu